salaamaaleykum c'est monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Fall secrétaire général des ex-contractuels de la Sénélec tey nag comme yéen presse bi ni ngeen ko gisee gis nga Sénélec empêché nañu dugg fa nga xamante ne nii kenn ëpp ñu fa ay droit ñu ngi koy déplore di ci woo monsieur le président de la République du Sénégal parce que Sénélec lu mu def tey perte temps la ci ñoom perte temps la ci ñun donc waroon na mun a ñàkk xeexuñu xulloowuñu sànniwuñu ay xeer dañuy réclamer suñu ay droit suñ ay droit mooy lan récemment ñëw nañ fi ànd ak presse national bi ñu ñëwee buntu direction générale lañ taxaw ñu def suñu déclaration naajement ñu juge fa Senelec woo ñu ci kaw ñu toog ñu waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaan ak ñoom ñu tënk lu leer ak madame Diallo ak conseil du DG un certain Aziz Fall bu ñu demee ñu ne ñu premier trimestre bi Senelec carrément dinañu jël mooy la régularisation de tous les ex-contractuels de la Senelec ñu dem ba ci kanam ñu ngi jokkoo ak ñoom normalement à un certain moment donné ñu jot leen ñu ne ñu am ngeen fi quota donc kon combat bi waroon naa jeex am nañ fi quota li ci desoon mooy ñu wax ñu suñu quota ñaata la ak kañ la ñuy commencer les recrutements donc wax boobu leer na à un certain moment donné mënatuñ leen a jot parce que on dirait que dañ naan ñoom xamuñu lu ñuy def ou bien le DG dafa bëgg a jël quota bi politiquer ko parce que am na lu mu ci jot a jël yóbbu ko ci local yi. yi ci des nag législative yi ñu ngi ñëw moom la bëgg a jël politique nous on est nombre de cent quarante une personnes donc loolu yomb naa jël Matar sa jël na fi deux cent jëlaat fi deux cent jëlaat fi quatre vingt treize personnes donc loolu Senelec attan na ko cent quarante une personnes du dara soo gisee ñu lay wax nombre bi dañuy bañ DG génnaati presse bi naan ay huit cent personnes la ñoog ay sept cent personnes lañ monsieur le président de la république on est au nombre de cent quarante une personnes. qu'est-ce que vous réclamez lan ngeen di réclamer exactement. CDI la ñuy réclamer. CDI la parce que loolu mooy suñu ay droit comme monsieur le le secrétaire général Soutalek Habib Aydara génn na récemment di ko wax mu ne besoin yi mu ngi fi Sénélec bu ñu jëloon ñun ñëpp du jeex donc kon Sénélec war nañu mën a jël quota yi ñuy politiquer la ñu war a bàyyi. fii ñu fi nekk ñëpp c'est des agents de la Sénélec de pères de famille des responsables ils sont là depuis plus des années. Sénégal dafa euh, dafa nekk di politiquer da koy poli effectivement da koy politiquer parce que boo gisee Habib Aïdara génn ñaari yoon di réclamer donc Sénélec dafa bëgg a politiquer bi nga xamante ne nii moom la ñu war a jox loolu nag duñ ko nangu. tey ñaata yoon ngeen liggéey Sénélec euh, ñaata at. fii am na ay cinq ans am na ay dix ans am na ñoo xamante ne nii tey bu ñu duggoon quelques anne la ñuy def retraité. loolu lépp Sénélec moo leen ko teg du Sénélec Dakar rek ça c'est le Sénélec national ah Tambacounda Ziguinchor Kédougou Kolda Touba jurbel ñëpp ñëw donc ñun li ñuy réclamer ñor nañu policiers yi nag topp nañu may ñu ñu jàmm may ñu ñu salaam ñun ñu ne leen alt parce que xulloowuñu xeexuñu li ñuy laaj ñun ñoo ko moom li ñuy laaj encore une fois ñun ñoo ko moom donc monsieur le président de la république dan lay woo ëllëgu Sénégal ndawu réew mi la te tey boo nee l'emploi et l'employabilité da danga ko war a respecter du loo xamante ni ni da nga koy wax jël ay directeur directeurs généraux jox leen ay postes ñuy salfaañoo li nga xamante ne ni ñun ñoo ko moom di ci def lu leen neex duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey nag mooy deuxième lancement bi prochaine fois neneen la ñuy ñëwee noo xamante ne ni tey nangu nañ sax déglu policiers yeeg gendarme yi waxtaan nañoo ñoom naaj beneen yoon loolu duñ ko naw bu jaree xeex dañuy xeex ak ñoom bu jaree xuloo dañuy xeex xulook ñoom ndax li